yow le président acteur euh, transport routier euh, ñu xam la collectif président benn collectif maanaam seen kilifa di wax seen nous euh, ñu bëgg a xam yow naka nga jàngatee démb déclaration ministre ak levée restriction du secteur du transport. waaw foofu damay dellu tuuti ci ginnaaw xam nga mi président de la république lañ ko dégg donc responsabilité am la bu dara une mesure.

parce que fermeté bi mu andalon da fa wolone gën nek souple parce que fekk na bobu ñi def intérêt interurbain ñu ci bari nek nañ ci dëkk yo xamni du seen lieu de domicile ñoña tay ci gare routière li ñuy fanaan xolal tay dama bëggol ku nek nek ci seen place nga tok lu mat ñetti wër di fanaan ci biir auto amo kër go dem bo soxla sa bop wala nga sangu da ngay dem ñaan ci ak kër nga dundu dans une précarité bo xamni bi dañ laa teg mesure boo xam ne bii xëy na bu ñu waxtaanoon danañ leen permettre yéen ngeen dellu seen ay kër loolu moo indi jafe-jafe yi problème mu Sénégal nag mooy leen mesure bu amee dañuy jàpp ni parole d'évangile la wala alxuraan kenn ko war kenn waru koo werante mesure pour acteur la bu ko acteur bi nangoo rek mi mise en œuvre bi dafay yomb impact bi dafay positif bu ko acteur bi nangu lu mu baax baax baax baax day indi jafe-jafe mesure yi ñu indi nag ay mesure la yoo xam ni mën nañ ko jàngat supprimer nañu couvre euh, euh, nañu feu lever nañu euh, interdiction bu interurbain bi ñi ngi dem ak dimanche de mais la bëgg a à équidistance entre les transporteurs et l'État du Sénégal nekk un simple citoyen qui est ci train faire. yi li taxoon ñu jël ko dañu waxoon ni parce que le secteur du transport dafa nekk un élément qui peut être vecteur de la propagation du virus léegi ñu wax ni dañ koy indiwaat mais question bi may poser état bi mooy ndax jël nañu disposition dispositions parce que nous devons garantir quand même sécurité pour que li ñu nous nit ñi danañ ko respecter parce que bu nous ni wax nañu des mesures barrières que nous amuñu ay dispositifs yu leen may ñu am un élément ñu am élément de veille au niveau des gares routières pour protéger les usagers xool les acteurs le font les daldi di indi jafe-jafe gares routières yi nga xamante ni ay gaaru horaire est-ce que dispositif boobu dana fa me ma relever ci rek benn nous dégg naa ñu wax ci benn émission ci affaire manifeste manifeste bi ma nga fa depuis gare routière boo nek tey lañuy ñuy doog di xam njariñu manifeste moo lay wan ne la kon secteur du transport dafa nekk secteur bu ñu bàyyi boppam muy daw ak euh, dem wax nañu ni oto bi dañ ko war di raxas suba ngoon problème bi nekkul foofu désinfection tour la raxas tour la est-ce que raxas mooy désinfecté désinfection ay professionnel ñoo koy def dafa am un coût est-ce que état bi taxaw na tey pour fépp parce que loolu nag privé mu attanuñ ko est-ce que état bi tey taxaw na pour fépp foo xam ne fii il daf fay taxawé mu tek fa service d'hygiène bu auto yi dem bu auto auto bu ñew ñu désinfecter bu ñu mesures ci responsabilités def privé bi li ñu doon bay désinfecter yi dama responsabilité état la ndax état sécurité wu nit ñi bu décision euh, interdiction il faut avoir am tous les mesures d'accompagnement et à ce sujet il dama leen di ñaan la presse fépp fu oto di départ ngeen dem fa wax nañu ni dañuy lever euh, interdiction euh, bi mais c'est une chose et son contraire ku ne xam na ni horaire yi ci bari guddi la ñuy daw léegi boo 23 heures lay def couvre-feu mooy daw leen bëccëg booy def dara la nga def dans sa globalité parce que tey oto yooyu dañuy daal di am problème mais damay rebondir sur en fait démb dégg naa conseil ministre de l'intérieur wax ni def nañu couvre-feu mais ñi nga xamante ni seen liggéey fonctionnaires yeeg journalistes yeeg yooyu dañoo war di dox guddi danañ ko dox mais ki moom otoom di def horaire mais liggéeyam la guddi nañ ko may mu am autorisation pour mën a daw. instant bi euh, luuma bu ñu ko dee wax euh, daanaka bagage yi yéen yéen a koy yóbbu muy camion yi yow nag nga yaakaar ne ak couvre-feu ñooñu war nañoo mën a liggéey. waaw léegi xam nga luuma yi camion yi dañ fay taxaw mais auto yi bus yi ñoo yóbbu nit ñi ak njaga jaay suñu ñu demee wàcc jënd li ñuy jënd convoyé waat ko ci camion mais guddi la ñuy départ balaa fajar ñu àgg balaa 6 heures ñu départ convoyé seen ay marchandises ñu ñëw kooku boo ko interdire ne ko 23 heures dootoo daw mais dafay nekk amul cohérence ak nga levé ak nga ni luuma bi na am parce que bu fekkee acheteur bi mun faa nekk à temps réel loolu day indi problème donc motax ñu ni nañ ko xolaat ci waxtaane ko ginnaw jël nañu ñom disposition ni dañ koy lever japp na ni c'est sous dañ ko tek ci ay sartu yu wol mais du ay pression do la japp mais kon war nañu mëna tek ay mesures yo xamni sénégalais bu nek boy jog di dem gare routière wala ngay jog di deug ci auto am nga assurance ni état bi jitu na la fa ba la ko war def na ko mais bu fekkee dañu jël mesures yi ba pare bàyyi kook acteurs yi rek man damay japp ni du am impact bi ñu doon bëgg manifeste bi ki gérer gare routière bi mën na ko def mais dama japp ni le coût de la désinfection fofu faut état bi japp ci ca mu japp ci day doon lu jaaru parce que nak santé publique nit ñi moom lañ ko dénk. kon yow de jàpp nga ne actuellement ginnaaw mesure président bi ginnaaw mesure état bi lever restriction yooyu kon dafa am benn daje bu wax yeen ak euh, maanaam bay nga war a nekk autour du table waxtaanee ko xam nga dégg naa démb sax ministre bi water la daje bon y a des acteurs yu fa mais xam nga euh, ça ne concerne pas que les acteurs presse Warna fa société civile Warna na fa association des consommateurs Warna fa parce que ñun eh, eh, ñun ak état ñoo séq usagers mais mën nga dem ci dégg naa dem ministre bi wax ni vingt heures la ñuy tëj gare routière yi ca jéemoon nañ ko fi ñu won leen ni munta nañu waxtaan seet lakal lañu ñu war a def état jël ay responsabilités mais la levée de l'interdiction dafa ànd ak la mise en place de moyens substantiels yoo xam ni koo xam ni ki sa oto dafa garé trois mois assurance ba jeex batterie ba yàqu yow nga dund ak ay bor amoo moyen di désinfecter oto na état jël service d'hygiène mobiliser ko su ko mobiliser nag ñoom ñu def liggéey boobu mais ni rek service public la acteur bee ko war def non loolu dafa nekk trop simple c'est la sécurité des usagers qui est en jeu. ñu rappel ni yow actuellement yaa jiite ben collectif euh, transport euh, acteur du transport routier tey si nii est-ce que ginnaaw mesure bi yéen fas yéen ngeen di euh xol euh, manam waxtan ba xol nak nga won mën reprendre activité yi. waaw gaay yaangi ngi waxtaan pour reprendre les activités mais xam nga le plus important mooy sitel naa la léegi car horaire yi daw guddi mais nañ leen jox autorisation parce que mesure kilifa moo koy jël mais nak du alcorane du bible dañ ko war di corriger parce que dañ koy appliquer ci acteur ci autorité bi du acteur donc impact bi mën na ko xam li ñaan dal moy parce que le virus est là suñu jël jëlee responsabilité responsabilités obligatoires, c'est une bonne chose mais na am les mesures d'accompagnement état aussi veiller à la lettre parce qu'il s'agit de problèmes de santé publique li may wax la désinfection bi transporteur yi attanuñu ko xam nga nit gens, nga taxaw ak moom mu nangul la dara mais est-ce que le ko def pourquoi tax ma bëgg état top ci mu am comité de veille yéen journalistes yi ngeen di en réalité mesure barrière yi ñu wax est-ce que c'est respecté parce que tey jii bu ñu ubbee boo maraîcher dañu faut respecter les mesures barrières est-ce que le contexte bañ koy ubbee ak que nga savez, le maraîcher respecter les barrières yooyu dana fa nekk

ki génn nous kañ lay ñibbi këram c'est y a des problèmes Euh, routières c'est bien de les fermer et tout mais impact bi auto kenn mënu la wax ni ma ngi jël auto bi dem Dakar dana ag heure sangam. Yalla mën na ñëw dogalam ci yoonam yooyu yëpp lañ ko jël en charge Ñi ngi ni tay wax ni euh, visite technique ni dañ leen tëjoon centre contrôle technique mais am nañu jafé jafé depuis ñu ni ubbi na ils prennent que 300 ou 400 personnes par jour Ñi ngi japp auto yi pour defal la visite technique moi, tax dañuy ñaan le ministre de l'intérieur ak le ministre des forces armées ñu wax force de défense et de sécurité nous ni trois ou quatre mois bu ñu jàpp kenn ci visite technique parce que centre bi la mu daan jël jëlu ko yooyu mooy yoo xam ni su fekkee réglé wuñ ko fait créer de la souffrance nit ki dafay dund ak métti du ci mën dara parce qu'il a l'autorité en face mais autorité bi dafa war a xam ni autorité mi ngi ko tenir mi ngi ko jëlee ci pouvoir bi ko nit ñi jox kon dafa war a def loo xam ni dafa arrangé nit nañu wax force de défense et de sécurité nañu bàyyi jàpp nit ñi ci visite technique démb am na ku ma woo ci port bi dañ ko attesté ba dafa mujj fay alors que centre bi nee na 400 personnes lay jël ñoom ñoo tëjoon centre bi nañu nangoo waxtaan ak nit ñi. beneen mbir bi mooy euh, fonds d'accompagnement yi ñu doon wax euh, bu ñu séddalee Berkut Demba Ndiaye dégg nañ si Dakar Dem Dikk am na si 400 millions xaw ma euh, yeneen transporteur yeneen secteur informel en tout cas 300 millions la yeneen seet léegi yooyu yéen dégguñu seen kàddu yi actuellement naka ngeen jàngatee loolu yéen man jikkoon naa ci wax ci benn émission ci DTV euh, booba 3 milliards 5 milliards et quelque la woon bi ñu ko calculer taxe bi 3 mois peut-être ay 000 lay am muy 5 000 par mois ci koo xam ne kii mën naa 100 000 francs par mois mu toog 3 mois muy muy muy muy 300000 dama ni woon nañ leen ko delloo delloo bi du parce que dañu leen a wala dara mais bu nit ñi déggee ñu ni jox nañ ñu trois mille cinq milliards muy rëy ci bëtu nit ñi ca bu demee ci individualité di am impact delloo ko ñu def ko ci santé bi ko gën a soxla moo gën dégg naa ni léegi yokk nañ ko ba 8 milliards c'est une bonne chose euh, ndax xëy na am na ñu ko soxla mais dama lay xamal ne la Dakar dem dikk ci boppam waruñu ko woon jox dara parce que société la bo xamni bi li muy coûter état bi mo bari tay bëggoon na ñu calculer li ñuy def ci Dakar Dem dik xool est-ce que c'est à la hauteur du service rendu aux contribuables sénégalais danañu gis du non. ci Dakar Dem Dikk waratul am traitement de faveur il y a des privés qui sont actionnaires là-dedans il doit bénéficier du même traitement que l'on accorde à AFTU tay man buma doon séddale ñi nga xam parce que logique dafa am ci lu ne li nga ñi nga xamanteni ñom ñoy interurbain nga pendant trois mois dawuñu amuñu recette de recettes. Nous parbelles la part belle parce que nous ci subir des pertes d'exploitation Si ay auto taxaw seen ay assurance jeex des ay batterie vivre en dehors de leur famille dans une précarité pour respecter le mot d'ordre nous la ñu waroon jox nous bari bu ñu nous ci nous ñu jox aftu dara Si nous aftu taxi yi jaganjaay ak euh, car rapide ab Dakar dem dikk su ma état bi du ko jox dara bis yu ko état bi jox du ko delo ca khalisu contribuable bi lañ ko jox muy liggéey war di fay mais état moy substitué wu ci moom di gàddu bor bi di ko fay service bi mi rendre en moyenne ay 50-60 millions lay traverser lay transporter de personnes lañ wax pendant que AFTU dana def ay 200 et quelques millions de personnes mais impact bi AFTU am ci biir population mom amuko ci donc on parce qu'il coûte déjà trop cher à l'État je d'accorduma d'accord avec Dakar Demdik, il Dakar il a ko interurbain parce que c'est l'État du Sénégal c'est l'argent de nos contribuables du contribuable sénégalais qui lui est donné et moi, je juge que c'est euh, une chose euh, une société qui nous revoir parce que c'est bien de desservir Dakar mais pas avec autant de milliards waa léegi tey daanaka wax nga pour état bi wax nga pour say say moromu acteur transport routier ban message ngay lancé parce que bu ñu ne démarrage dafa mel ñëpp dañuy jugandoo euh, mu di lu xam ne mën a jur euh, musiba si yoon yi yow ban message ngay wax euh, sa morom transport parce que aussi ku toog 2 mois 3 mois daanaka organes yu bëri si oto yi war nañu mën a nekk ay paan yow ban ban kii annonce nga xam nga yow da nga mel ne ko xam oto oto boo koy gaaree pour loon guddee dafa yoo koy gaaree ça n'a pas été respecté donc dana xaalis. dama leen di ñaanal yàlla dimbali leen parce que fi mu ne mbir mi moom sës na foo xam ne fii yàlla ngay évoqué yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu reprendre su ma amee it lu ma mën a waxaat mooy démb day dégg naa ci discours maître Oumar Youm li mu wax lépp il a eu le courage de d'accepter que ni le secteur va mal c'est déjà quelque chose ñun à la CPTRS qui est membre de la CATRS où je suis coordonnateur le départ ba ba pour la mise en place d'un observatoire national du transport au Sénégal il est heureux de me dire conseil national conseil sénégalais des transports terrestres du Sénégal mais c'est à l'image du CMTR Nous jël observatoire moo gën a et ça vient de nous les acteurs mais l'un dans l'autre le plus important c'est le contenu de cet observatoire su qui def nañ ko ba ministère bi la ma lay wax fi léegi ni amul ñu nañ ko def lo xamanteni da fay nek un organe indépendant expertise ya fa wara nek yep nek nekk fa ñoom ñu saytu transport doxal ko nek une force de proposition li tax man la buñ ko ko le comptable de tout ce que nous faisons c'est le président de la république dañuy bëgg bu boba organe bobu suñu ministère défé lo xamni ni ak li ñu bëgg ñu déllu ci président mom mu arbitre. Nous, quand on demande un observatoire ce n'est pas pour que nous n'ayons un département du ministère mais c'est pour que nous n'ayons un organe indépendant avec les acteurs ñuy réfléchir di sur les politiques de transport Il y a bu observatoire nangu woon du def contrôle ci boo maraîcher ba ci départ bi utiliser manifeste mais c'est parce que le transport est laissé à lui-même jot na état loolu mu créer ko bu koy créer contenu bi mu discuter ci ak acteurs fexeyit ba secteur privé bi am ca doole lool partie prenante qui nekk le ñu di élaborer ministère moo yore en charge les politiques publiques mais nag su defee loo xam ne li arrangé wuñ dañuy bañ xoolal tey ministère direction des transports autorisé nañu benn cimentier mu jënd 100 camions di def transport au ciment alors que c'est pas son cœur de métier alors que c'est un transport privé qu'il fait a le droit defe ko ci usine ba indi ko ci euh, lieu de stockage mais dès lors que dafa jóge ci lieu de stockage bi di dem ci fo xamante bi un acte commercial la ki am agrément moko ko def ana kan moñu ko kassal ministère a ko jox agrément kon mais bu observatoire waa amul du am li ñaan transporteur rek moy len lañu dal ci gëm sunu borom ci xamni li du fi jog bu ko yalla dogalu ñun nag li ñu war moy def sunu ay pex mais fi may gëna insister moy nañu ànd bokk nday bokk bay gis nga fi ñu jëm ak secteur bi ba contribution bi sur le plan économique sommes à la hauteur de l'influence que l'on doit avoir sur les politiques publiques ñun ñëpp la ñuy lañu La bokk ndey bokk xam li jar bokku ñu it wax de chapelle buñu andul, Le bu président de la république décidé de transport bi euh, dañu wara euh, yolomal parce que depuis le 11 mai président dafa né reprendre activité économique Et wax reprendre activité économique da ngay xamné dañuy reprendre compte activité transport parce que transport doit accompagner activité économique et sociale Nous euh, avons ñu ñëw tay qui ci di recevoir l'eau bi nga masque 100 000 masques le ministère du développement industriel euh, dans le cadre de son programme de 10 millions de masques Nous avons dañu koy jël acteur euh, transport Ce qui yombal une reprise parce que reprise dañ ko reprise de reprise sérénité mais reprise aussi respecter protocole sanitaire la distanciation physique mais aussi les barrières les gestes barrières le masque ci gestes barrières yi la bokk bu am solo donc loolu moo vraiment ñu Nous koy remercier développement industriel industrie dafa anticiper sur les besoins économiques et sociaux anticipation boobu moo tax tey bi ñuy waaj a ubbi école mu joxe 300000 masques ci eh, ministère de l'Éducation nationale bi ñuy waaj a ne dañuy ubbi masques yi mu 500000 masques ministère de l'Intérieur. intérieur tey xaarul daf ñu woo rek dama ma comme dégg naa yéen a ubbi ñëwal ma jox la comme ça dimanche kuy dem ci gare routière kuy liggéey ci oto boo xam transport interurbain nga di nga am masque parce que masque est un élément indispensable ci xex bi nga xamné ñu donc nous ngi koy félicité bu baax. am nañ avons mu reuy tay euh, ministre de l'intérieur ay masque euh, pour euh, mu yóbbu ci lieu de culture, culture. ñu ñëwaat joxaat éducation nationale également yenen masques pour mu jox ko élèves yi ci yi nga xam dañu en classe d'examen Le bu président Macky Sall décidé des mesure de restriction yi ci d'urgence pour permettre à askan wi ñu mën a dem ci jumaa yi julli ji mais tey mu ñëw pour euh, askan wi mën yombal dem bi ak dik bi ba tax tay mu jël décision né ñu jox euh, le ministre des transports euh, ñaari téeméeri junniy masque pour mu jobbu ko ci gaaru ceer yi yóbbu ko également ci transport urbain ba nga xam ne population yi man ko utiliser pour moytu feebar bi dal leen ndax président Macky Sall yaakaar né ne ñëpp xam na ne li ñor moy protéger askan wi rawatina. ci jëm ci wér-gu-yaram askan wi parce que xam na ne wér-gu-yaram kenn du ko jaaxaanee ndax di nit ki bu amul wér-gu-yaram du mën a def dara te loolu day bloqué économie réew mi tey nag ba tax na tey président Macky Sall euh, jóg na tey nañu taxaw jàppale askan wi mais aussi ci milieu de rassemblement yi lu mel ne gaaru ceer yi ak euh, euh, oto yi nii dugg ni transport urbain bi ñuy mën a takk masque yi di mën a moytu bu baax feebar bi ànd ak moom jëm a dund ak moom donc daal vraiment tey ñu am mbégte mu rëy ma ñëw nag ak sama le ministre des transports Omar Youm ñëw jox ko tey loowu euh, téeméeri junniy mask mu war koo jëmee ci euh, euh, gaaru ceer yi ak ci transport urbain yi